liñu indi tay aussi moy liñuy wax dignité doomu adama liñuy wax sûreté ci état de droit sûreté moy lepp li nga xamné japp nañ né du délit du infraction lepp li nga xamné constitution bi mayé nako liñuy wax droits fondamentaux ak droit yi nga xamné convention internationale yi ñoko consacrer consacré ak xalaatu doomu adama ci démocratie liñuy wax liberté d'opinion ak génne xalaatu doomu aadama li ñuy wax liberté d'expression loolu bu fekkee ne munta am ci état de droit bu ñu yeboo wax ne Sénégal bàyyi nañ démocratie ñu ngi ci dictature wala ñu ngi ci royauté donc tey mënuñu ne démocratie lañ ba pare boo waxee loo xam ne àndul ak bëgg-bëggu nguur gi am na institution yoo xam ne dinañ fexe ba nasaxal la bu fekkee ne li nga xam ne constitution moo la ko may ne yaa ngi koy jëfandikoo mun nañ la ci néewal doole ba tey ñu yóbbu la foo xam ne cas Guy Marius Sagna boo demee ñu ngi ko yóbbu ci ñuy wax ne prison quartier de haute sécurité defe naa ñu may nit ñi sénégalais yi ñu wax liñ bugg a wax buñ paree ñibbiwaat seen kër wala même buñ jàppee ne endroit bi ñu ñëw war ñu foon a ñëw disperser leen ne leen jóge leen buntu pare ñu jóge fa parce que fukki nit mu mënu ñoo xeex ak armée Sénégal palais ña fa nekk ay kalachnikov la ñu yor ku romb buntu pare tey xam ne mënoo xeex ak ñooñu yor ay loxoy nen donc du paranoïa sax mais xëy na ëpp na li ñuy am lu ëpp paranoïa boo demee Mauritanie ñaari manifestation am fi buntu palais boo demee États-Unis Donald Trump ñaata manifestation ñoo am buntu palais Les yi dem nañ pour utilisation des armes circulation des armes aux États-Unis dem buntu Maison Blanche stade Broadway yi dem nañ buntu di xeex contre Donald Trump c'est ce dañ leen a bàyyi ñu ñibbiwaat na démocratie gën a am doole ci dëkk donc tay defe ni mal pour répondre la on dañ koy ébranler wala dañuy fexé ba li nek mu génn ci lolo tax ñuy def dañuy rek parce que limuy xex dina ko xex dina am njëriñ wala du am njëriñ lolu benen débat la mais dal tay nam doon sourire démb non lay sourire mu institution yi wara garantir liberté sénégalais yi droit sénégalais yi indépendance bobu motul parce que nek nañ ci système bo xamné ne mënuñu exercer sen indépendance donc tay muy boko ko muy violation yo xamné foko foo di xolé rek liñuy wax lé liñ doon tuddé droit de la première génération moy sûreté liberté doomu Adam bi amna ko ci république rupture de la de l'égalité wu ta am ci démocratie discrimination ta am stigmatisation ta am gis doomu aadama rek ne ko ki mom euh, dañ koy yobbu fo xamné dañ koy làq société bi xañ ko ay droit am loolu tey bu demee bay am Sénégal nag jaaxle war na am moo tax nag tey bu ñu waxul woon defe naa dina jaaxal nit ñi moo tax ñu taxaw tey ne xeex bi defuñu ko pour Guy Marius Sagna pour sénégalais yëpp lañ ko def defe naa ne Sénégal dañ ko considéré woon ci pays yi nga xam ne mooy li ñuy wax pays précurseur de la démocratie de l'état de droit ak des droits de l'homme Sénégal dañ ne woon sax îlot de lumière dans un océan d'obscurantisme maanaam Sénégal leeraange la ci Afrique boo xam ne dafa lëndëm mais tey bu ñuy joxee exemple Cap-Vert ngay dégg Ghana ngay dégg ak yeneen dëkk comme ay îles Maurice ci pays sous-développé yi mais Sénégal kenn tuddatu ko donc loolu defe naa Sénégal mérité wul loolu te tey ni ñu ko waxee am nañ ay défis majeurs maanaam défi sécuritaire gis ngeen terrorisme bi ni muy demee ci suñu sous-région bi pétrole bi war a dem génn ëllëg wala gaz bi nga xam ne war nañu xeex ba droit économique et sociaux sénégalais yi ñëpp mun cee jëriñoo xeex ak multinationales yi nga xam ne déjà ci licence yi rek ndax nañ Sénégal ba ñëw indi fi ay euh, ay manœuvre ba jël suñuy licence jaayaat ko lekk ci ay milliards Sénégal jotagul dara yooyu nag munoo ko am ba pare ñu ñuy delloo nag ci loo xam ne ku wax ñu jàpp la boo manifester ñu jàpp la boo ne attroupement am na duñ jéem a disperser dañuy jàpp yóbbu kaso lo xamné même buñ la jàppoon ni wax comparution immédiate la wara a doon dañuy choisir information pour mun la tay juroom benn wèr at ñaari at loolu nak suñ ko bayé ñu ne bu yeboo ñun sax suñ organisation yi ñu dal di ko tass motax tay xex bi xex de principe la dinañ ko xex pour képp ko xamné citoyen nga bul wàcc yoon boy manifester teg ko ci yoon boy def attroupement non armé buñ ñu la nee dispersé wu nga dispersé wu mais de l'autre côté aussi ñu ngi ñaan institution yi nous sommes ne nekkuñu fi police du tribunal di ne nekkuñu pour défendre un régime mais pour l'intérêt général donc tey nous bi duñ ko nous avons ko nous déjà bi dem na fa parce que rapport yi génn ñu Sénégal arrière na juroom la place ci démocratie mais bu len yaakaar ne dafa ci eh, ci rapport yi ñuy def ak documentation violation violation yi ñuy def diko duggal ci suñu réseau yi mais motax ba ñi nek bitim rew mëna xam tay li xew Sénégal xamné Sénégal amna lo xamné tay tey mënatuñ koo jox wèg biñ ko joxone xeyna na bu njëkk ba doon ko considérer comme un état phare avant-gardiste en matière de démocratie